asalaamaaleykum mbokku internetu Dakar Midi ñu amati mbégte ak kontaan dañu naan saa su ne demee ñu fas yéene waxtaan ak si combat Ama Baldé Modou Lo naan la ki ma toogal nii nag kii dootuma ko présenté Sénégalais yi ko ah bébé Ama ah lépp lépp Ama Baldé ngi nii yàgg ak Ama Baldé ah, ñu dem fa loolu ñu def fa tamit ci lamb bébé Ama ñu ngi lay nuyu. bisimilah maa ngi lay fay Abu maa lay fay bu baax Abu CFA yow sam waay nga. nee naa la milieu journaliste lu muy rëy rëy rëy yow laa ci gën a nawloo tey suba bi ma yeewoo journaliste li ma woo sama téléphone a ngi ne la xool ko li ma wool ci ay journaliste man na set télé bu nekk woo na ma mais avec plaisir ma dafa ak émission parce que li gën a neex ngay def émission koo xam ne da ngeen xamante lu jiitu. ay affaire làmb lu jiitu affaire émission parce que daan naa yëngal mbapat mun nga ci wax lu bari Modou mbay doomu Bécaye bi muy soog a dal ci làmb bi ma fekkee ma am 13 ans mu daw dar ma stade du bari dani ma lan moo indi fii lan moo la indi ci làmb waaye dama koy wax rek ay doomu pikin lañ ñun dañoo mënee fu ne fu nu tourné rek lu ñu yëngu rek coow li day bari ci lépp nag Pikinois yi xam nañ li ma wax ñun si lu ñu yëngu rek coow li day bari mais yàlla bëri na sutura yàlla bëri na sutura. a hmm. ah, jërëjëf euh, bébé Ama ñoo ma ci mbégte kontaan lool a ah, ñu jëm ci combat bi nga xamante ne actuellement nee naa ne mooy combat royal combat boo xamante ne fi mu ne adduna bi ñëpp a ngi koy waxtaanee ñu ne Ama Balde Modou Lo Ama Balde Modou Lo lamb la joo xamante ne nii cool commencé naa bari Modou def ay sorties yu bari jëmale ci ki nga xamante ne tey mooy ci côté Ama Balde parce que nee na ñi nga xamante ni sax ñoo jiite Ama Balde maanaam ay dof lañu ku ci wax na ba dafa cité ay tur wax na Abdou Bakhoum wax Zil Balde lan ngeen koy tontu ci wax jooju. waaw doomu aadama la rek dañ koy nangul waxam ak xalaatam parce que tamit segam ñun ñii di ay supporters fayeku wuñ dërëm ñooy wax asamaak moom mi ay millions. Modou moom rek moo war a wax bu waxul kan moo war a wax aw CFA Modou bu waxee war naa wax bu waxul war naa wax parce que dafa jël combat boo xam ne kuy bëri xale bu safit fit yëngatoo di nga wax Modou foofu la tollu mais nag comme ci côté Abdou Bakhoum ci côté Zil Balde ñooñu mat nañ li ñu doon ñooñu mun nañ tontul seen boppu man daal dama ñëw cadre sport cadre pikinois cadre jàmm ak salaam non à la violence. ci si stade bi li may gis ci làmb fi mu toll nii rafetloowu ma ko dangay gis mbër bu faye ko soixante million cent millions génn ay supporters am yàq lu ëpp deux cent millions nañ ko wax tàddee loolu demalul làmb kanam parce que mënoo bëre am cinquante millions yàq cent millions say supporters génn këf ay téléphone jàmbur ay saagu jàmbur soo ko defee budget bi boo ko calculer day toll ci cent million ci mbër bu fayee ko cinquante million balaa may gëm ni mbër porteur de voix nga da joxe ay bon exemple ku mel ne Siteu mi ngi wax ci média yi mais xama nga fan laa koy gëmee moom Siteu mu taxaw dajale ay supporters am ne képp ku ànd ak man boo këfee pasatu jàmbur wala nga def lu ñaaw doogoog naag yow àdduna ak àllaaxira wax boobu rëy na waaye bu dee nitu dëgg la waru ko ragal waru ko ragal de parce que Siteu xamante nañ bu baax keroog laay soog a juum ci làmb ma gént dara ci làmb te amul te Siteu moo ma njëkk juumloo ci làmb dama ko gént Papa saw humilier ko mu ñëw rek sarax ma banaana xaw ma sax lu ma ko jëlloo moo tax biñ tojee bopp Papa saw laa ne Siteu làmbkat la instant yi mi ngi ci gàllaaj gu wóor mais dama koy si ta ndaw nga xale nga gëmal gënal gëm sa bopp sa banditisme dama bëgg nga wane ko ci biir géew parce que téléwoo te bàyyi faal nga wax ju rafet na boo ko waxee ñu ne temps daa far wala si ta xaritam la amul sama numéro aw ma numéro am man taal Serigne Touba laa ci côté làmb laa waxee si ta gën a rey sa bopp man gis naa sa ngemb ndax bu dee benn jour la sax dund nañ ko ñun làmb xam nañu rawaan bi xam nañ fu sarax si di nekkee làmbang sa ginnaaw gënal góorgóorlu nga taxaw ray sa bopp ci biir géew gi mbër nga. mais Ama Baldé Modou Lô risque mënut a weesu àdduna du ñu seetaan ñu siy wax. ñii dañuy bëgg ñii bañ ndax ñun luñ def ci adduna rek bu amul critique bu guñ parce que critique yi mooy war a après commentaire yi gars yi ne nii gars yi ne naa xam nga ko am 30 di commentaire ci booy bu am 23 ans ndam la mais ñii dañuy wax lu rafet borom xol yu rafet yi parce que Abou CFA moom émission fort for force da ngay commentaire parce que dafa dal respect bu muy waxee doomu aadama bi psychologiquement dangay xam ne journaliste métier la bu ñu war a jàng man dama la cee naw ki ngay invité doo ko teg pression doo ko wan ne sama heure a ngi jot doo ko wan ne tamit carrément dugal ci lii ba mu ëpp dang koy bàyyi xelam maa ngi lay remercier ci loolu di la wax yow ndaanaan la ndaanaan bu mag a mag nga fi ñuy dégg ay bubsu dinañ la fa dégg bu soobee yàlla waaw parce que ndaw nga te xam nañ la bu baax ñun ak lu làmb xam nañ la bu baax xëy na doo di faral di wane sa kanam ci ay image moo tax ñu bëri duñ la di gis mais ñun xam nañ. ñun xam nañ. combat Ama ci desante mm-hmm. bi euh, Modou toog na lu yàgg mm-hmm. gi mu yor na kattan carrément. Mm-hmm. parce que xale la fukk lay ñëwee ci combat parce que Ama Baldé ñëpp xam nañu moo xamante ne dina xaar mbër. làmbam soo bëree mu bëree boo xeexu mu xeexu. waaw Ama dafa neex a digal. Mhm. ndaysaan bi mu ñëwee ba léegi liñ ko li ma ko jege jege gisanteeguñ. Mhm. parce que li gën a neex ci àdduna mooy koo xam ne foo toog seen xol yi di gisee. Ama buñ dajante woon fii nii day daw songu ma. Mhm. te pied gauche man maa ko njëkk a wax fii. dafa dox rek ma daw sexal ko pied gauche mel na koy romb di dem sama yoon rek mu ne ma pied gauche ndax xam na ni pied gauche laa ko jiitalal. kon kooku ndaanaan la kooku dafa vigilant ci làmb ji mais ci côté communication bi ma koy wax frère communication bi na tegu si temps bu mu ëpp su ëppee rek da ngay doon favori te boo doonee favori mun na la sonal bu ñu nangu staffu Modou loo di ñu gën a doon ay professionnel bu ñu nangu loolu parce que ñun Pikinois la ñun ay doomu Falaye Balde lañ ñun buñ nangu waa parcel dañu gën a doon professionnel ci làmb ji parce que làmb ji gis naa ni ñoom côté entraînement la ñuy gën a waxee ñoom nañ wax li fi nekk quoi nañ wax sportivement parce que tey jii nii ku wéet ak nit di ko jay boo tàqalikook moom jaw ko ñun ama nii la ñuy jàkkaaroo moom naan ko doo dërëm li jënti la parce que dañ ko sékk ak moom bu daanoon làmb ji yëpp bu taxawee suñu kanam ñun dañ koy wax liñ ko war a wax te daf ñu koy nangul ndax Baay Faal la te xol bi yaatu na Demba de sama waay la Demba Balde kooku dafa ma bëggal boppam muy jabaram maam jaara man maa jàpp si loxoom ba may ba yëkkati ko ne ko maam jaara mii sama nit la sama lëpp la may ko maam jaara kon kër googu noon duma ma fa ku ndaw jéggi naa Ama jéggi naa Demba Balde jéggi naa Paate Balde jéggi naa ñëpp man Pa Fallaay moo ma bëggaloon boppam baaba yoo mooñ si dëgg maay si fen yàlla na ko yàlla xaare ajjana barke ajjuma ji duma wax ba pare te ñaanalu ma ko ñu bari ñu ngi fa woon

xam nga dégool moom suñu papa la te papa moom bu taxawee wax ak doomam ku génn di tontu da ngaa naafeeq ndax booy ñaa ku dépassé dégool tamit ci défendre booy ñaa booy ñaa da lay mere parce que kenn du kenn du xas papa taggu doom man duma ko def dégool mag la fugu fugu bi topp na ko mu tàng gaynde gi nekkoon ci moom yeewu na mais ku xam dégool xam ne du koy yàq du koy wax wax ju ñaaw man Assane laa gën a mi xam magu booy ñaa xam naa Assane dama fat bi may gën a nekk booy daan naa ñëw écrit booy ñaa ñu ma fay tëggal ay làmbu loolu yàgg na kon ñooñu xam naa leen bu baax booy ñaa si combat bi erreur dama ciy dellu si waat erreur booy ñaa ci combat bi bokk na ci mystiquement ñun nuñ ko analyser dafa yàgg ci géew gi mm-hmm. te am na faskat yoo xamante ne nii mm-hmm. balaa ñu lay gën a mun a fas nga nekk ci biir ron centre bi yàgg ci loolu dem naa ba benn instant ndeysaan maa ngi yuuxu Pape Sarr mënumaa dégg boobu tegtalu làmb ji lu ndaw la woon mais comme ta làmb jooju jàll na te tafaatin mbër la day bëre keneen ëllëg rek duñu wax tegtal boobu bul fàtte ni ama tafaatin ba muy bëre ñun ñoo ko daanoon waaw dañ koo miinee miinee miinee mujj gi ba def ñu doon ñaan intervention moo tax booy ñaa na gën ut ay nitu làmb ay sañ-sañ bi tafaatin ay mbay guy gi njëkkee kii affaire u kaanam mu def déclaration boobu déclaration boobu neexuma foofu lañ daanee booy ñaa booy ñaa tafaatin bu la ñemee ñeme na la jeex na dootu la ragal bu la ragalee jeex na dootu la ñeme fala la ñemee booy ñaa booy ñaa ñun ay pikinuwaa lañ ñun dëgg la yàlla ama la ñu féetale mais yéene bi ama am si yow ñun am nañ ko ci yow bu ñu yàlla wanale woon ñu dajee ci làmb nii toog ñun am na lu ñu la mun a dimbalee ci làmb loo xam ne yaa ngeek moom te gisagoo ko te incha allahu rabbi mbër ñun àdduna dinañu boole yàlla dinañu boole bañ dox ne la staff bi làmb ji nii ak nii sarax yi nii ak nii nii nga war a dugg see. Hmm. bu bu rek neex. waaw Pape Sarr moom nuñ koo cotiser si làmb parce que ñun mënuñ doon quatre vingt seize quatre vingt dix sept di cotiser koo xamante ne nii ay soixante seize wala soixante treize kon kooku moo ñu jiitu si làmb gën ñoo xam làmb gën ñoo xam saraxu làmb ñun daal dañuy topp ci grand yu mel ni ñooñu rek di leen déglu si lu ñu wax rek ñu ne lii rek ñun ñu appliquer loolu mais may insiste si non à la violence bi parce que man ak yow bii passé def nañ émission may expliqué lu bari ci Modou Lo ba naan fii nii dafa damm ak yooyu di tooñante commentaire yi bari woon torop ñu wan ne ñun sportif lañ ay xale lañ ñun ragaluñ fu ñu caméra fekk dañuy wax ak moom bañ na ko ba quatre heures di matin la ñuy tëdd fu ne la ñuy dugg ci banlieue bi kon ñun ragaluñ Modou Lo nag instant bi li ko war a daan man tëdd naa ba guddi xalaat ko xool ko xam ne du wax mu du wax daanu ko boo gisee tey sama communication nu mu changé nga xam ne waaw nga xam ne wax daanu ko mm-hmm. jëf moo koy daan te ama gis naa ko mi ngi ci jëf ju metti mm-hmm. mi ngi liggéey lu metti mais képp ku yéene ama ndam yaatalal sa xol bi ama dafa daan Malick ñaa ñii naan gàllaaj ñii naan entraînement mm-hmm. déedéet xol yu booloo moo ko daan moo daan Malick ñaa di di wax ndem si yàlla Jules de Junior yàlla na ko yàlla yërëm di wax mafia bi ñu fi yàlla suñ borom teg nattu yàlla na leen ko suñ borom teggi ñi faatu yàlla na leen suñ borom bi yërëm parce que àdduna nii la ñii dañuy dem ñii di ñëw ama instant bii nii wéet na wéetul parce que bu wéttali koo ngoram wéetul waaye tamit sant yàlla daal di nuyu sama copain liilu liilu sama gaan la liilu mii wax waaw badara liilu borom sant yàlla moom sant yàlla dëkk mais sam waa Père Ndiaye Babacar Ndiaye di ko nuyu bu baax a baax a baax di wax per quarante mille si boppu koñ ba bébé ama fàttewu ko di nuyu Idrissa Gueye commissariat Pikine bureau accident di nuyu commissariat Pikine bi yëpp di leen wax nit jàmm rek ay jàmm parce que da am ak ay nit jàmm sax ñu lay dëkkal fu ne alkaati yi ay doomu aadama lañ ay nit lañ dañoo am famille dañoo sol seen drapeau di xeexal seen réew man noonoowuma ak ñoom jéemu ma noonoog alkaati jéemu ma noonoog benn doomu aadama ku ma yàlla booleel ma ànd ak yow yàllaa ma nattu nag may dem ci commissariat yi di jaay ak ñoom di jënd ak ñoom di liggéey ak ñoom di defanteek ñoom lu ne waaye suma ma musee jël doomu aadama booleel ak alkaati mu yóbbu la kaso ajuma ji yàlla bu ma raw leneen lu ci des nag man la intéressé ndax sëñ Abdou Lahat Mbacke wax na wax bu am solo nee na ku fen dalaa neex ndax xam nga ci sa bopp loo xam ne waxtaan du neex ba nga wax ko <laughs> kon foofu rek laa koy tënk. di wax combat bi moom. waaw comme samedi fi mu mooy li nga xamante ne nii. Mhm. mooy test lutte bi war a test stade bi. Mhm. ñëpp ñu naan lamb ji. Mhm. stade bi euh, est-ce que lamb ji dina bi affaire bi passé lu moo xamante ne dafa am maanaam mbooloo mu ko mu toog mu baree baree bari. léegi loolu lépp nit ñi ñu fas yéene ko waxtaan stade bi samedi noonu lañ koy waajee. stade bi duñ ko doon waajee rek. stade bi moom ñun dañ ko moom te biñ ko moomee ba léegi yàlla def na amaguñ ci ndam lu rey ñun stade bi boo seetee ñun ñoo ëpp luñ ci daanu ta ñoo ko moom. Mm. moo lay wan ne Pikine fi mu toll nii xol xat na parce que Pikine dafa am loo xam ne rafetlu wu ma ko dañ naan la diw dëmm la diw dëmm la ba guddee nga fekk leen kër diw ñuy reer loolu ñaaw na nañ ko éviter. nañ ko dindi parce que Sénégal bii ñu nekk dafa xat rawatina Pikine boo xamante ne nii bu Sénégal dee koñ Pikine waañ la kon war nañ mun a yaatal xol yi raxas ndab yi ku ñëw lekk sa morom jug sa morom lekk mm-hmm. ñu ngi koy waaj nag mm-hmm. parce que mooy li ma la wax rek Modou loo dañ koo xam dañ koo xam bu baax a baax bu bu nekkee ci weer bu mu amee doole mm-hmm. dañuy xam ne am na doole bu nekkee ci weer buy dooleem wàññeeku di nga xam parce que sport nit noonu la doomu aadama noonu la léeg-léeg ngay na lu metti sax di mm-hmm. ñàkk doole waaw léeg-léeg ngay noppalu di am doole mm-hmm. moom xam na lu ma ko wax bu baax moom Modou Lo mu lay sotti. ci Mhm. waaw ma ngay wax Modou yow magum làmb nga yàgg nga ci làmb bul waxee noonu en tant que sa petit frère ma lay wax bul waxee noonu bëre nga fekk mbër bu nekk ragaloo gàllaajam kon bur bëreeg aama rek ne da ngaa ragal gàllaaj gi mhm. loolu noonu boo ko defee rek. kon man sama communication jaar na yoon jàll na ndax yooyu yëpp maa la ci poussé si te keroog bi mu waxee gars yi di sinap ñuy wax ama di saaga loolu yëpp man maa ko indi. man maa ñëw ba si cu cumbukaayam am benn ruube bu ndaw bu ma ruubee. si nag na booy amaay booy amaay xam ne ñun ñoom moom <laughs> arène nationale frère lamb rek. waaw que le meilleur mais Modou Lo moom incha allahu rabbi le vingt cinq bii nii nii nañ ko dugal stade bi ba mu fees. nañ ko dugal stade bi bu mu fees may wax Pikinois yi nañ bale stade bi bu xeer am fenn bu nu sànni xeer bu ñu def dara ku ci am looy dimbalee ama boo ko munul ba munoo ko jëndal ndox yu sedd guy di ko jox nit ñi ñuy naan waaw loolu rek laa am di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi te wér di ñaanal sama yaay yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te wér yàlla dolli sutura musal ñu si pexey noonu musal ñu seytaane ñu si yàq jërëjëf euh, waaw waaw kontaan naa bu wér a weer a wér kontaan naa bu baax a baax ah, alhamdulilah jërëjëf ah, wax ji waxtaan bi am na solo gis ngeen li nga xamante ne tey mais ñu ngi biir Pikine di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñu mooy ñi nekk ci jege Ama doon depuis Ama Balde ba Ama li fi wax gis ngeen insisté na carrément ci non violence bi kon bu ñu yàq bu ñu def dara stade bi suñuy stade la xam nga làmb bëri na ñoo xam ne bëgguñu ko di tiitoor ni bëgg nañ làmb ñu bëri bu ñu sañoon tee làmb dee kon boog suba waa pikin nañ ñu si fair play waa Parcelles ñu si fair play Pikine mooy dalal gaay waaw Pikine mooy dalal gars yi ma wax lu ndaw rek si TikTok yi nag gars yi dañuy jël sama communication woo yeeg yooyu noonu di ci wax mais <laughs> loolu nañ ma ko fay <laughs> aw jàppale ma ci loolu gars yi fay ma vi yooyu noonu. waaw TikTok yi man la ñuy toppandoo samay wax rek la ñuy jël mais nañ ma ko fay. <laughs>